nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala alhamdulilah noo ngi ci guddi fukkeel ci guddi shahru ramadan al mubarak war a am fukkeelu jotaay ba tey ci bunt bi nga xam ne mooy buntu at taqwa muy ragal yàlla nga xam ne suñu boroom wax na ne moo tax mu farataal koor ngir ñu war ko ci jële ci jotaay yi weesu ñi ngi doon wax sabab yi nga xam ne mooy tax nit ki am at taqwa muy ragal yàlla ci jotaay yi ci topp nii mu ngi jëm ci melokaan yi suñu boroom wax ne ku ragal yàlla nekk ci moom nii la war a mel loolu nag kenn ku nekk da koy seet ci boppam lu ca nekk ci moom mu gën koo dëgëral gën koo yokk gën koo wéral lu ci nekkul ci moom mu jëm cee góorgóorlu ci njalbeenu suratul baqara suñu boroom tabaraka wa taala tudd na fa lenn ci melokaan yooyu bismillahi rahmaani rahim alif laam miim zalika alkitaabu laa rayba fiih hudan lil muttaqin foofu la njëkk a tudd ku ragal yàlla ne téere bii de dara ci sikk nekku ci lu ci nekk rek lu wér la lu ci nekk yaqin la téere bi nag ak njub la ci ku ragal yàlla kon tudd na ku ragal yàlla daal di wax nag ni mu war a mel ne allazina yuminuuna bil wa yuqimuuna alsalaa wa mimma razaqnaahum yunfiquun ñi ragal yàlla la jiitu ci seen melokaan mooy dañuy gëm gëm xaybu muy xibaar yi ñu leen di xibaar te mënuñu koo xamal seen bopp doomu aadama yàlla da koo defal ay xamukaay bokk na ca lu muy gis bokk na ca lu muy dégg bokk na ca lu muy làmb daj ko bokk na ca lu koy xeeñ bokk na ca lu muy mos xam lu mu saf yooyu yëpp ay xam xamukaay la bokk na ca lu mu yëkkati xam nu mu diise yooyu yëpp nag loo ci mënta xam nag loola ray bu lay daal di tudd ci yow kumpa la kumpa lay doon waaye teewul ba tey des na beneen xamukaay mooy loo xam ne dañ la ko xibaar sa jumtukaay yooyu mënoo ko cee xam waaye nag xibaar jóge na la fu wér foo xam ne war nga caa mën a sukkandiku muy lii xew ëllëg yépp gannaaw faatu gannaaw de li xew kenn mënu koo xalaat ba xamal ko sa bopp waaye nag suñu boroom yebal na ab yonent wàcce ci moom téere ngir mu xibaar nit ñi liy xew gannaaw bu ñu faatu te yonent boobu it feeñal na ci moom ay mujizaat ay tegtal yu wane ne moom mii yëmut ak nit ñi ab yonent la ndax bu fekkoon nit a jóg rek di la ko wax te gisoo dara lu ko wuutale ak nit ñi kon mën nga ko bañ a waaye yonent boobu suñ boroom day feeñal ci moom ay mujisaat yoo xam ne nit mënu ko bu dee yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mujisaam bi gën a rëy mooy alquran ji muy jàng kenn mënta andi lu ni mel kenn mënu ko te araab yi wax moom dañ koo man lool waaye mënuñoo andi wenn saar wu tolloog saaru alquran qul fa'tu bi suratin min mislih wenn saar rek boo gën a gàtt lu mel ne inna ataynaaka al kawsar benn arab mënta dégg arab ba mën na indi baat yu mel noonu kon kooku war nañoo xam ne kon lii muy wax jógewul ci moom yàlla lay jóge mu ne kon ñi nga xam ne dañuy gëm xibaar yooyu mu xibaar yépp ci lay xew ci gannaaw dee dekki gaag pang gaag dañale la gañuy dajale nit ñi yóbbu leen fañ leen di attee regle gañ leen di regle jox leen gañ leen di jox seeni téere jéggi gañuy jéggi seraat ak nag kenn ku nekk dem ci këram gu mujj ñii dem aljana dem aljana ñii dem feneen dem feneen fariqun fi janna wa fariqun fi sair yooyu yëpp ay xibaar la yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi moo nu ko jottali ci alquranul karim ak ci sunnaam kon loolu ku ragal yàlla da koy gëm mu teg ca wa yuqimuuna salaa ñuy taxawal julli waxul ñuy def julli rek waaye ñuy taxawal julli ba julli mel nam war a mel ca laab ga ca ponk ya ca rafetal ga ba julli mat sëkk ñetteel ba wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun bokk na ci melokaani ku ragal yàlla itam li ko yàlla wërsëgal lu mu néew néew mu ci joxe ci yoonu yàlla di ci joxe ngir yàlla ak lu mu néew néew rek li yunfiq suu saatin min saati wa man qudira alayhi risquhu fal yunfiq mimma ataahu llah suñ boroom néewul ku bari la rek mooy joxe waaye nee na ku bari la na joxe ku néew la it na joxe wa man qudira alayhi risquhu fal yunfiq mimma ataahu llah ndax yàlla moom li bari bariwul fa moom li néewit néewul fa moom la ca am solo mooy yéene ji ak sellal gi nga xam ne moo tax nit ki di ko def kon joxe ci li nga am lu mu néew néew di ko joxe te yàlla rekk tax di ko jox ña ko yeyoo loolu ci melokaani ragal yàlla la moom wallazina yuminuuna bi ma unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil axirati bokk na ci seen melokaan it dañuy gëm alquran jii ne ci yàlla la jóge ni ñuy gëmee téere yi jiitu woon ay tawraat ak al injil ak saboor ak suufu Ibrahima ak suufu Moussa ak téere yépp ñu gëm ne ci yàlla la jóge yowmal xiyaam itam ñu am ci yaqiin ne day ñëw buñ nekk naan dañ ko yaakaar rek comme ni ko ñenn ñay waxe in na nazunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustayqinin waaye danga nga ci war am yaqiin lu wóor ci ne ku dee dangay ngay dekki te itam bis dana ñëw yàlla dajale ñépp kenn ku ne ñu wan la la nga jëfoon yow yawma tajidu kullu nafsin maa amilat min xayrin muxdara wa maa amilat min suin tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan baida wa yu'adhirkumu llahu nafsa nee na bis boobee kenn ku nekk loo jëfoon ci lu baax da ko fa fekk mu teew loo jëfoon ci lu ñaawit da nga ko fekk waaye da ko bëgg a dànd lool law anna baynaha wa baynahu amadan yàlla nee na ngeen moytu ko yàlla nee na moytu leen ma wa yu'adhirkumu llahu nafsa yàlla moytu loo na leen boppam lan nar xew lépp wax na leen ko kon yowmal xiyaam dañ cee war a am yaqiin mu ne ulaika ala hudan min rabbihim nee na ñi mel nii gëm di taxawal julli di joxe ci li ñu am gëm alquran ak téere yi jiitu woon yépp ñooñu day ñi ngi ci ak njub wa ulaayka humul muflixuun ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy taxe kon melokaan yooyu yépp suñu borom tuddal na ko ku amuk ragal yàlla te ragal yàlla nag moom lañu ñu war a jëlee ci koor soo wooree ba koor gi jeex te melokaan yii nekkul ci yow koor gi amalu la benn njëriñ mu ngi mel na tey nga doon jàng ba at mi jeex waaye ba ñu la examen at mi woo nga ne rek man jàng naa weer yëpp jàng naa ko waaye lañ cey jàng xamoo ca dara at mi woo ca yaa ku jàngu ñu li gën a ba dañ lay delloowaat gannaaw sax nga jàngaat am moom ñu ne dafa redoubler waaw dafa redoubler kon ku gi jeex te jëlewoo ci taqwa kooku day mel ne yàqu wóorut yéene kon nag yàlla na yàlla defal tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain